à, à la chose en elle-même oui le Sénégal aujourd'hui euh, Churchill da ko daan wax les hommes d'État les, les les hommes politiques pensent à la prochaine élection les hommes d'État pensent à la prochaine génération mhm. ndaxte tey jii ki waraloon coowal pétrole bi yëpp ba bi muy lii fekk ko fi fekk ko fi c'est vrai donc tu vois jàngat benn mm-hmm. jàngat la ci biir jàngat yi mm-hmm. ndaxte tey ji nii ay y a pas ce qu'on n'a pas dit autour de ça y a pas entendu autour de ça y a son frère n'a entendu autour de ça mais ba muy xew xoolal ci te ñu doon ñu critiquer tey seen responsabilité la nekk ah ben on voir à l'œuvre on va les voir à l'œuvre donc aujourd'hui le Sénégal a du pétrole mm-hmm. maintenant nag Mamadou aussi il faut dire que le Sénégal a des réserves de pétrole estimées à 3,7 milliards de barils. De barils. Mais euh, ce qu'on ne dit pas assez mooy nos réserves de gaz sont plus importantes. Mm -hmm. et pourtant on communique plus sur le pétrole. moo ëpp bayre rek. c'est-à-dire que ñun tey. et l'enjeu mondial maintenant c'est gaz. mais oui tey jii nii le Sénégal a 930 milliards de mètres cubes de baril de mètres cubes de gaz. à exploiter. Mm-hmm. loolu moo waral tey jii nii l'équivalent de l'OPEP. xam nga l'OPEP mooy l'organisation des pays producteurs de pétrole. Mm-hmm. te pour dugg OPEP il faut un certain niveau. de de de, production pour dugg fa. Mm. le Sénégal ne peut pas entrer dans l'OPEP mais le Sénégal est entré à l'équivalent mm. de l'OPEP du gaz. du gaz bi ouais. booy l'organisation mondiale des pays producteurs de gaz. Mm-hmm. dugg nañ foofu te dugg ñu OPEP. donc ça veut dire que le Sénégal a des réserves certifiées aujourd'hui mm parce que en Afrique nous sommes la septième réserve africaine et nous sommes nous faisons partie des trente premiers pays. en termes de réserve au monde. Mm donc ça lu ñu am ci gaz bi lu ne dégg nañ ko ci. mais au moins sécuriser nañ li nga xam ne. waaw mooy yëf yi pour vraiment que génération future yi. waaw ak euh, askan wi mën ci jariñu. waaw parce que y a une loi defe naa de deux mille vingt deux boo xam ne dañ ko tuddee loi sur euh, le partage de de des ressources. Mm-hmm. loi bi dafa ne lu ñu jëlee ci pétrole ak gaz si ñett pàcc la jëm benn bi c'est pour alimenter le budget. en cours mm-hmm. benn bi c'est pour les fonds pour les les générations futures. beneen bi c'est ce qu'on appelle. Euh, le fonds de stabilisation luy dem ci budget bi xam nañ ko c'est quatre-vingt-dix pour cent des ressources mmh. ou des recettes pré sorties dix pour cent pour le fonds intergénérationel parce que xam nga lu tax loolu mu mën a am mhm. suñu constitution dañoo bind article vingt-cinq les ressources naturelles appartiennent au peuple, donc bu ñu appartient au peuple c'est le peuple d'aujourd'hui et de demain. dañu war a bàyyi xel a bàyyi xel surtout que c'est pas des ressources extensibles à l'infini mm-hmm. c'est des ressources yuy jeex ndaxte voilà mm-hmm. épuisable dañu ne ñun Sénégal amuñu pour exploiter suñu pétrole ak suñu gaz ba mu jeex suñuy doom ak suñuy sët ñëw duñ fi fekk dara mm-hmm. léegi nag pour penser à eux on dit ok prenons pour cent des recettes dugal ko ci benn fonds boo xam ne moom lañu tuddee fonds intergénérationnel mooy maanaam xaalis boo xam ne dañ koy jël di ko gérer de sort que xaalis boobu di jur pour que bu ëllëg suñuy doom suñuy sët suñuy sëtaat ñu mën a ne ah ñun kat suñuy maamaati maam wala suñuy maam wala suñuy bàyyi bàyyee leen nañu fi. en espérant que transparence dina ko en espérant c'est important en espérant bien sûr. après fonds bi tamit dafa am lu ñu ko limité lu mu lu mu mën def ak lu mu mënta def. Mhm. fonds bi dañ am na fu mu war a dugg ak fu mu war a dugg. loolu yëpp loolu leeral nañ ko leeral nañ ko à travers un décret qui dit naka lañ ko war a defee. Mhm. léegi na mu am lu ñu tuddee euh, fonds de stabilisation xam nga nag pétrole. mook dollar ñoo ànd. Mhm. dañuy yéeg di wàcc. baril bi day yéeg di wàcc. c'est vrai pétrole ak dollar ñoo ànd mhm. parce que ñiy mhm. jënd pétrole sax ci dollar lañ koy jëndee. te dollar mooy loo xam ne yenn saa yi mu yéeg. yenn saa yi mu wàcc. voilà comme le dollar n'est pas stable. alors que ñoom seen ay calcul dañ ko def sur un modèle économique stable ñu ne léegi bu fekkente ne par exemple dañu ne pétrole day jar cent vingt dollars et que suba mu jar cent quarante dollars. donc le surplus de vingt dollars boobu. dañ koy jël denc ko ci benn compte. d'accord bu ëllëgee bu fekkente ne pétrole bi dafa nekk cent dix dollars. au lieu ngay ñàkk nga tibb ci compte boobu noonu ëppoon def ci complété fële mm-hmm, mm-hmm. loolu mooy le fonds de stabilisation donc loolu aussi bokk na si ay équilibré merci pour mm-hmm. équilibrer bokk na si ay instruments yi nga xam ne teg nañ ko pour que justement uh-huh. euh, la la répartition puisse se faire maintenant nag après y a débat qui se lu tax ñu ñu am pour kese xam nga des fois aussi ñi fi nekk tey ils nous ont dit qu'ils allaient euh, revoir ces ces ces contrats waaw avec les risques yi ci nekk yëpp waaw xam nga tout contrat est renégociable loolu moom nañ ko xam ndaxte contrat mooy yow lu la lié ak boîte bii ngay liggéeyee. Mhm. mën nga renégocier contrat bi. mais après lu la siy fekk. yaa xam pas de manière unilatérale. pas de manière unilatérale. Mhm. parce que pour renégocier un contrat day fekk ñaari parties d'accord ñaari parties d'accord après nit ki bu la nee je renégocie contrat. yow moom boo boo ko laajee leneen en contrepartie loo koy jox. Mhm. mais xam nga aussi. il va falloir parce que tey jii la renégociation du contrat de l'autoroute à tax na yokk délai bi. exactement ñun am nañ plus d'argent. mais yokk yokk nañ délai bi. gis nga parce que loolu c'est quelque chose boo xam ne combat bu ñu porté woon la. Mhm. mais après tu vas dire gis nga maintenant am na ne est jaroon na ko jaru ko mais dans tous les cas négociation la. Mhm. tu Euh, bu fekkente ne eh, xam nga luy béy seddoo rek di nga comprendre lu tax mbir yi demee nii. Mm-hmm. ndaxte yow yaa moom tool bi. yow amoo lu béy tool bi. Mm-hmm. Mamadou ma ñëw si la ne la sëñ bi kaay ñu bokk liggéey tool bi. nga ne ah ok nga ne léegi man dinaa indi jiw dinaa indi engrais dinaa indi matériel dinaa indi surga. Mm-hmm. kaay ñu béy léegi bu ñu béyee balaa ñoo séddoo lu ñuy njëkk a def. génne frais yi ba pare. ku ci nekk la nga ci defoon. waaw ku ci nekk la nga ci defoon ba pare lu ci def ñu séddoo ko. donc noonu lay demee loolu moo tax Sénégal amu ci lu bëri. loolu noonu lay demee parce que tey jii nii entreprise bii nga xam ne mooy Woodside. Mm-hmm. on cherchait cinq six milliards de dollars. six milliards de dollars boo ko tekkee ci CFA trois mille milliards de francs CFA la mais est-ce que Sénégal pare woon pour jël trois mille milliards ci budget dugal ko ci mm-hmm. non léegi nag am na partie boo xam ne Sénégal supporté na ko à travers Petrosen xam ne dafa dem lebi xaalis mm-hmm. pour investir am na partie bu ci gën a bëri boo xam ne Euh, contractant bi moo ko kii. Ah. loolu moo waral maintenant bu ñuy séddoo on sort cent mille barils par jour selon les projections. Ouais. maintenant une partie des barils va servir à rembourser la euh, les investissements. L'investissement. une autre partie la ñuy séddoo. ci loolu noonu ñuy séddoo nag Sénégal dina ci dem ba am jusqu'à cinquante voire soixante pour cent des bénéfices. D'accord. mais la plus grande partie quand même. il faut uh-huh. le dire ça sert. à rembourser ci pétrole bi avant euh, ñu jàll ci.